Euh, salaamaaleykum euh, chers internautes euh, Senego TV ñu ngi am mbégte bu baax jàkkaarloo ak yéen tey comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi fii tey ci rond point EMG fi nga xam ne benn accident bu métti moo fi amoon ba am koo xam ne ñàkk na si bakkanam donc actuellement au Sénégal ñu ngi gis ne en une semaine am nañ plus de cinq cas d' accident loolu nag mu dikkee ñu ay morts yu toll ci quatorze personnes ont décédé. ak plus de cinquante nit yoo xam ne am nañ blessure ak une vingtaine boo xam ne c'est des blessures graves donc situation bi nekk situation bu alarmante ici au Sénégal parce que c'est pas la première fois ñu am ay cas Euh, d'accident à chaque fois dañuy gis état du Sénégal jël ay mesures mais on dirait que mesures yooyu euh, duñ ko jëfee euh, que mu nekk ci côté état wala mu nekk ci côté chauffeur yi. voilà comme li ngeen koy gisee ci image yi fii la accident bi amoon mu nekk benn bus bi nga xam ne dafa daanu completement donc bi mu daanu nag mu am plus de dix blessés yi nga xam ne actuellement ñu ngi hôpital ak. benn dame boo xam ne ñàkk na ci euh, bakkanam donc euh, situation bu nag mu nekk situation bu doy waar actuellement Sénégal que mu nekk euh, tata yi mu nekk njaganjaay yi gisoon na aussi à Pikine ñaari njaganjaay yoo xam ne daa daanu woon nañ mais heureusement boobu amul woon décès am amoon quelques blessés donc ñu fas yéene tey waxtaan avec la population ba xam lan solution la ñuy teg pour ñu mën a éviter genre cas yi donc tey nag ñu fas yéene def reportage waxtaan ak population bi ba xam exactement lan la ñu war a pour véritablement ñu éradiquer problème bi nga xam ne mooy euh, accident bi ñuy nemmeeku fan yi yëpp ci Sénégal. gis ne euh, démb fekke woon nga accident bi fi xamoon fii euh, donc est que mën nga ñu expliquer exactement nu mu demee. waaw 32 bi la Guédiawaye la jógee si si autoroute bi la jógee ba muy wàcc fii nag si la saaraan mu saaraanee nag mu dal ci rond-point bi nii si kii bi daal dal si barrière bi nag barrière bi moo ko tëmbal oto bi këpp si biir jaaxaan. donc pour yow lan lan euh, ah góor moo oto yi dañoo màggee rek non bu fekkee oto bu baax la bu ne boo xam ne si état la ne du daanu. donc euh, mën nga wax ne euh, ñi yore bus Tata yi seen entretien moo moo moo moo de de sa baax. ba ci état kay ba service des mines tamit am na si part de responsabilité ndax bu boo déggee tamit ñu naan service des mines bu maanaam nga contrôler la mais boo ñëwee foofu boo graissé ñu bàyyi la nga jaal loolu tam nañ loolu la ñu war a xoolaat loolu logique loolu du yoon. ah pour yow yan yan mesure la ñu war a teg pour véritablement ñu régler problème bi. mooy comme ni ñu wax rek comme ni lu Diomaye di war rek ñu doxal dëgg rek doxal dëgg bu nag moom maanaam du si président bi tamit du si tamit homme de tenue bi si ñun la war a njëkkee ba pare njëkkee njëkkee ko suñuy kër teg ko si tali bi ku nekk nag doxal dëgg ku nekk jàppante boobu Sénégal yi yaay président bi bu ñu ko defee léegi léegi lépp dox mais korom boobu noonu ñëw. tromper pour nga jàllale sa kii yow boobu yow mu njëkk yaa ngi nax sa bopp loolu nag yaa mooy yaa njëkk a fen sa bopp loolu nag moo nekk yoon ku nekk da war a doxal. à chaque fois dañuy gis euh, accident su amee gouvernement bi day génn jo daf ay mesures mais euh, pratique bi que mu nekk que mu nekk ci population bi wala mu nekk ci euh, gouvernement bi du am suivi da nga yaakaar ne lan moo waral loolu. waaw moo laa la wax ma la ku maanaam askan bi moom day xool intérêt am gu nguur gi tam xool intérêt moo tax affaire du am suivi. mais ñoom ñoom dañoo waroon bokk intérêt commun la ñu waroon bokk maanaam doxal doxal Sénégal doxal société bi mais ku nekk na da ngay xool seen intérêt personnel Tra bi xool intérêt personnel maanaam mu géré gaaw pour ñu bàyyi ko mu dem liggéey léegi nguur tam moom mu xool tamit géré boobu noonu tamit pour mu xool tamit na kii mu am ci xaalisam moo xool comme mu renvoyé nit ki wala mu fourrière ko mu père moom na si am xaalisam rek moom tamit munu a faj tam yeneen turu te loolu tam ku nekk sa intérêt lay xool. loolu du yoon. merci beaucoup. Euh, suñu yaay lan nga xalaat ci accident yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci Sénégal actuellement donc euh, en une semaine am nañ ñu toll ci quinze personnes yi nga xam ne génne nañu àdduna à cause des accidents euh, ban xalaat nga ci am. en tout cas metti na trop metti na trop démb suñu xol yëpp naqari na parce que yenn saa yi prudent chauffeur yi la ci chauffeur yi lay doon parce que tamit yenn saa yi booy dawal nekk si téléphone. tamit c'est pas prudent di def ndànk dégg naa da doon doubler fii booy wàcc autoroute bi fii diggante bi mën na fee daw ndànk boo wàcc mais boo nekkee di daw xel te amoo frein tamit day métti métti na trop daal. Euh, ban message ngay lancé gouvernement bi pour que ñu mën a jël ay mesures yi xam ne dinañ ko respecté pour ñu éviter li ni mel. Ah, gouvernement bi tamit dina métti na daal mais euh, passage yi ñoo war a jël. ñoo war a wax ak chauffeur yi bu ñu nekkee ci oto di téléphoné ñu bañ ko wala buy daw yenn xel yi ñu arrêté ko wala ñu boole kook agent buñ ko gisee parce que li am démb moom suñu xol yi metti na man tey dama ni woon sax duma ma jaay xol yi naqari na trop ñu ñaan yàlla bu mu fi amati daal chauffeur yi gën a nekk conscient daal ci li ñuy def parce que ay nit la ñu yàpp ñuy def ndànk rek ñuy def donc mën nañu wax ne yéen yi nga xam ne da ngeen di jaay ci booru tali bi yéen ngeen yéen ngi ci actuellement en insécurité ah man de démb bi ma ko yégee damaa tiit wax dëgg yàlla fekkeewu ma ko mais bi ñu ma woosee ne ma accident am na xaw ma nan laay jaar ba ñëw xaw ma nan laay. Eh, yéen a ngi en insécurité ban ban ban euh, message ngay lancé. yàlla rek mooy sàmm jaam parce que saa yoo xëyee rek yaa ngi ci. uti dee dee di la daw yàlla rek moo ñuy sàmm ñun ñëpp nga nekk ci kaw tali bi ngay voyager lépp yàlla rek ñun ñu nekk ci boor bi ak ñiy voyager ñun ñooy. ñu gis ne actuellement au Sénégal accident yi bëri nañ trop donc euh, ñii ñu ngi wax ne euh, chauffeurs yi ñu ngi wax ne gouvernement moo euh, deful ay mesures yoo xam ne dañ ko war a respecté ban xalaat nga ci am pour que affaire accident ñu éradiquer ko au Sénégal définitivement. waaw en tout cas. dëkk bi moom comme dem nañ ba ñëpp daal ne euh, dina jaar yoon lépp luñ ci mun a def daal mooy di wax di negandiku ñiy dawal aussi di soor ne ñi ñuy yëpp ci seen oto yi ay bakkan lañ te ñoom ñiy dawal bu dee ay responsable lañ tamit ñi def ci seen ginnaaw képp ku xëy dugg ci oto rek am na lu la tax a jóg kon di dem te yëgguloo fa nga jëm taxul nga dem kon euh, ñi nga xamante ne ñooy dawal dinañ def ndànk ndax ñoom itam ay njaboot lañ ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi aussi dinañ jël ay précautions xool la li nga xamante ne bu ñu ko tegee yëpp dina jaar ci yoon ba kenn bañ am euh, ay tolof tolof ndax comme réew moom ñun yëpp ñoo ko bokk ku nekk am na li la ci war te ku nekk li la ci war mooy defar ndax looloo ñu tax a jóg ñun yëpp te jeunesse bi loolu lañ doon xeex aussi yaakaar nañ ne xëy na bu bu ku nekk daal xoolee ne nii laa war a doxalee pour mu baax jàmm bi mun naa yaatu te xëy na yenn tolof tolof yi mun naa wàññeeku loolu daal xam naa ko ci. Euh, wax ne. Euh, na chauffeur yi def ndànk ci télé bi ñu respecter instruction yi surtout ñi dem defi ay visite ci seen oto yi. waaw respecter code de la aussi. di bañ di dawalee li la neex ak man oto bii laa yor fii laa war a jaar mbaa fii laa warta jaar boo xamee fi nga war a jaar te loolu nga jàng boo ko respecté sa morom respecté ko rek ndaje du am kon liy war a ndaje yi di am ba ay yéen yi di am ñàkk respecte respecté li ci war la. loolu moom euh, képp kuy dugg ci oto yi di dem ak képp ku dëkk ci biir dëkk bi loolu da nga koy xam. ndax am na foo xam ne tey booy jéggi oto yi war nañ laa mun a may nga jàll ndax wane nañ ko fa def nañ fa tableau mais ku la ci romb day mel ni ku yor avion di dawal boo ko boo ko xoolee sax bu la xoolee day mel ni ku bëgg a wàcc pour ñu def la lu ko neex loolu bokkul ci respe l'essentiel aussi respect bi war nañ ko ci dooli yi waaw parce que tamit euh, boo nekkee responsable dafa am noo war di doxalee ni nga war di doxalee nag mooy ni nga xam ne boo ko doxalee suba ñiy jaar ci sa ginnaaw buñ ko gisee xam ne lii rafet na kat ñu topp ca mais lu ñaaw lu ne nag bu ñu koy roy day gën di ñaaw rek loolu moom euh, laa xam ne am na solo ci yooyu quoi. chers spectateurs Sénégal déglu ngeen li nga xam ne moom la population bi xalaat ci accident yi am actuellement au niveau du Sénégal ñu ñu ngi indexé euh, le gouvernement mais ñu ngi indexé de plus chauffeurs yi nga xam ne ñooy dawal. parce que wala on on a l'impression même que gars yi comprendre ñu lan mooy code de la route. ak nu ñuy duble ci ay endroit yoo xam ne kenn war fa doubler maanaam ci descente montagne wala nga nekk ci ay virage di euh, euh, def euh, doublage donc loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy gën a andi cas accident. bokk na ci aussi li nga xam ne mooy visite visite yi nga xam ne gars yi duñ ko def ci seen oto yi au côté des mines et tout ça donc bokk na ci li nga xam ne moom la ñi ñu interviewé wax ci cause yi nga xam ne moom mooy causé accident yi donc message bi ñuy lancé au gouvernement. Euh, ak les chauffeurs mooy ñu def ndànk parce que tali bi on comme on dit d'habitude tali bi yaatu na xol yi ñoo xaw a xat donc nañ def de tout ba euh, ñu euh, respecter code de la route ñu daw ndànk xam ne bakkan la ñu jël comme ni ko waa ji wax tout à l'heure gouvernement aussi ñu veiller à ce que ñu respecter de manière stricte mesures yi nga xam ne moom la ñu jël gis nañ le ministre n'est-ce pas El Malick Ndiaye ministre des infrastructures routières ak transport donc wax na ne donc dinañ jël ay mesures yi nga xam ne euh, dinañ ko jëfee donc c'est ça que nous attendons aux autorités pour que véritablement euh, cas d'accident yi ñuy am actuellement au Sénégal wàññeeku parce que en une semaine am nañ 14 morts ak une cinquantaine de blessés c'est trop